ñun boobu ñu ànd ak président Macky Sall en 2011 bëggoon naa samp sama ndënd pour briguer la magistrature suprême Sénégal ma geestu gis ku ma si gën a jekk ku ma ëpp expérience koo xam ne tamit dañoo bokk même génération koo xam ne tamit dañoo bokk programme te bu ñu tasaaroo woon. suñu maam Ablaye Wade lu mu bëggoon def ci dëkk bi jàll moo tax ñun ñëpp ñu bëggee te intere réew mi demandé ko dañuy bàyyi suñuy intérêt personnel seet ku ci gën a jekk ñu jàll ñu àndal moom dooleel ko yàlla mooy joxe nguur juumuñu woon ci loxo Macky Sall la ko teg ñi nga xam ni yàlla joxu leen nguur ci moment boobu lu may ñaan yàlla moo ñu delloo ci seen xel delloo ci seen xol xam ni ñëpp mënuñu judd rek nekk président loolu na leer ci bopp ñu bari bëgg nguuru nag tax ba di daw di naan nit ki wàññil sa mandat pour ma remplacer la nu mu gën a gaawee bu ko yàlla tuddul sa waay day xaar bu ko yàlla tuddul pour jamais na xam ne il sara président pour jamais temps yi dégg ngeen président de la république bu ma ne sax président de la république damay naan le sénégalais le kandida Macky Sall ba muy kandida ma ànd ak moom mu jóg nee na am na intention. dugal Sénégal ci standard démocratique dans le monde que mandaa sept ans dafa ëpp su yàlla defee ñu jox ma nguur gi parce que ñaan dong la woon am naa intention jëlee mandat bi setan bi nga xam ne constitution bi moom la ma jox su ma fi toogee yóbbu ko juróomi at jamais cette intention là. ba mu ko waxee en tant que candidat en tant que promesse politique dafa garde parole am bu ngeen seetee tegu na ñetti at après 2012 le 31 décembre 2015 le 31 décembre 2015 bi passé ci discours am à la nation même position en tant que maintenant chef de l'État le maintenir gor ci wax ja il ne s'est pas dédié te dafa ne bëgg na li ma waxoon bëgg naa mu am dafa am fu muy jaar parce que moomu ma réew mi lu ma nekk président première institution gouvernementale de cet état dafa am tamit yeneen institution de la république sama sago dama bëgg sax mandat bi suñ ko wàññee def ko par référendum mu appliqué wu sama mandat bi en cours ñëpp dégg nañ ko ci 31 décembre bi Sénégal yëpp dégg nañu sama position man personnel ci wax jooju le 13 décembre am na émission bu noonu def dama ko tudd dama ne bu mu wax bu mu wax waxeet na jàpp fu mu jàppoon te loolu la def le 31 décembre ma kontaan lool parce que njiit gor loolu la. ma xam ni rëccuwuma man ak ñi ma àndaloon ànd ak le président Macky Sall nga gis beneen nit boo xam ne nekkoon na fi moom en tant que président muy suñu maam ab lay Wade ba mu toogee président ne ñaari ñaari mandat laay def ne julli ñaari rakka la en tant que président mu waxeet le 14 juillet 2011 maa waxoon waxet damay li ma dee waxoon dama ciy dellu si Macky Sall dellu siwul lu mu wax lu mu waxoon moom la wax le 31 décembre mu laajte avis ci base article 51 de la constitution sénégalaise conseil constitutionnel première institution juridictionnelle de ce pays laaj ko loo ci xalaat laaj président assemblée nationale lu mu ci xalaat ñooñu tontu ko jox ko seen position muy avis muy décision c'est la position d'une institution de ce pays ne ko ñun les juges ñun les représentants du peuple à travers le président de l'Assemblée nationale xool nañu xoolaat ça peut être un précédent dangereux koo xam dafa toog ci mandat en cours changé ko li nga bëgg pour Sénégal jëm ci kanam d'accord nañ ci réduire la mandat à cinq ans Sénégal yëpp kontaan waaye mesure boobu concerne wul mënul concerner en droit c'est une question de légalité man mii di wax ak yéen avocat xam naa li may mënul concerner sa mandat bi nga xam ni commencé nañ ko mais wax jooju leer na waa ji nga xam ni mooy la président Macky Sall léegi lu mu waxoon ci la toog ba léegi musul changé avis mu ñëw ñu jox ko avis boobu boobu ñu ko joxee avis bi mu génn bërki démb comme nu ko tout à l'heure monsieur Babacar Gueye waxee de Macky 2012 ñu invité bu muy discours boo ngeen ko gisee muy discours il avait mal au cœur c'est le président que je si lu mu bëggoon waa conseil constitutionnel nee na ko mënul appliquer sa mandat métti na ko lool mais La loi, c'est la loi. Mais elle est dure, la loi, mais c'est la loi. Depuis Sénégal taxawee ba léegi 1960 ba léegi tous les avis du Conseil constitutionnel ont été suivis à la lettre par les présidents ici du fi amul kenn ku ci dellu si un homme d'État un homme d'État parce qu'il na en a pas beaucoup il beaucoup de hommes des hommes d'État de détail de détail un homme d'État buñ la joxee avis boobu nga ni je vais le respecter comme l'ont fait mes prédécesseurs ana bi ñi nga xam ne dañoo yàkkamti defe nii rek nguur station am na ñoo xam ne bu ñuy wax di naan à ah, cette station là bu ñu